yàlla far cat ayca ñu ñëw ci l'enquête <laughs> eh, nañ ñëw ci guerre total bi enquête titré mu ne casserole arrestation lobbying international hmm. concert de casserole bi et de klaxon à Dakar yamu ca concert ba dem na ba Mbour dem ba Ziguinchor ak feneen ak feneen hmm. lépp pour protester nag contre le régime dafa mel ni concert bi nit ñi dégg nañu ko bu baax ñëwal direct news ma xool concert de casserole à Dakar et ailleurs journal bi nee na de mortel combat à mortelle ambiance xumu na lool te daga bruit retentissant des marmites bi et des foo tollu di ko dégg biir Ndakaaru nag ak hors Dakar fu ne ni ko doon dégg ci capitale sénégalaise et à l'intérieur du pays ñu ne grosse ambiance ca UCAD université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru étudiants yi yéen qu'est-ce qu'il ñoom concert gi dañu ko jël ba ca cité kër góor gi nga xam ne fa la Ousmane koo dëkk macha allah foofu itam santir nañu fa bu baax ne li nga xamante ne moom mooy marmite yi yëngatu na une manifestation boo xamante ne def nañu ko dans le calme il faut le dire sans heurts avec les forces de l'ordre loolu la direct news wax pas de mortel combat au grand bonheur des sénégalais mm-hmm. mais journal bi itam ñëw na ci atteinte à la sûreté de l'état dossier Adji Sarr ñu ne Serge Malou dafa dénoncer la conspiration du silence mm-hmm. voilà journal bi ñëw na ci euh, ba ba ba woo monsieur le président ne monsieur le président votre bilan si prometteur jusqu'ici est menacé la plus honteuse des manières et de la plus iné ineffaçable des couardises mhm. alors ci journal direct news Dakar Times pasat ñëw na ci li nga doon waxtaane sànq wàllum économie bi nag journal bee ci xëy tey programmation budgétaire et économique pluri euh, pluriannuelle 2023 mhm. 2025 bi nga doon wax sànq waa ñoom kañ la seen jeex sax ah xëy na ko nañ ko bëmmax ba cinq rek. Mhm, rafet jortu nguur continue. déedéet xëy na xëy na projet bi projet bi la ñu bëmmax ba ba ba 25. mais ñoom ñoom foofu laa bëgg a wax. en fait dañuy liggéey liggéey bu rafet dem. Mhm. waaw naa maanaam dañuy kii bàyyi ñu yeggale. Mhm. kon kon kon moom rek ñoom ñi ñoo xam ne dañoo yeggale lu bari ñu ñu bàyyi kii ñoom su fekkee BRT bi parewul aussi amul problème. ak yenn yi ñu ñu xaale ko ba 25. waaw kay en tout cas wax na les perspectives de yoo xamante ne affiché na 7 virgule 8 pour cent de taux de croissance ci li nga doon ñëw sànq euh, gëstub euh, Dakar Times bi nag tey ci wàllu woowee la taxaw ci wàllum euh, koom-koom économie ak pourcentage bi nga xamante ne wax nañu ko. Mhm. bés bi le jour ñëw ci manifestation ak élection législative yi journal bi nee na Yewwi en casserole Macky sous 131 ah bon. ah oui. <laughs> nit ñi nga xamante ne jàpp nañu leen ak ay ramifications en Europe. Déthié Fall nag et compagnie seen procès dañu ko renvoyé jusqu'au vingt juin le journal bi moom la xëy fësal mais man Macky Sousson 31 bi mhm. bëgg naa xam lu mu doon. ak benn xeetu 31 la ndax 31 gi may dégg la xeetum sañseek wala dafa am beneen définition. Mhm. boo xamante ne moom la journal bi bëggoon wax. Mhm. alerte quotidien itam ñëw na ci manifestation ak dérive autoritaire yu président Macky Sall ñu ne le Sénégal vibre au rythme des casseroles. démb foo tollu dégg nga nabi. Euh, foo tollu dégg nga booli. de Dakar à Ziguinchor. en passant par Kolda en passant par Mbacké Passan Louga Nabucor Kaolack les populations ont ajouté leur voix au concert de Yewwi Askan Wi elle est belle la une là elle très belle waxuma dara mais photo bee ko gën a rafet kii boo ko xoolee xam ne dafa dajji démb boolu inox bu bees tàq lii du bool bu miin waaj moom suñu xale yi kër la xanaa xamoo bool bu bees yow bruit bool bu bees na xam nga ko bool bu bees bu daanoo tasaaroo rek mhm. yow boo xifu tuuti da ngay taqalikook sa sago mhm. kii nag boolam bi bool bu bees la ku dulu sa mam yi li ma dund démb man moom la yorandoo di dóor concert de casserole bu amatee ah ngeen xool ko na waar ñu ne pour avoir approuvé les propos d'Aminata Tall contre Macky Sall Mankeur Ndiaye menacé nañ ko de ah oui menacé wuñu ko de dóor menacé wuñu ko de fitnaal menacé wuñu ko de benn place xam nga lu ñu ko menacé. Mm-hmm. de mort. Mm-hmm. de de mort moom lañ ko menacé menace de mort moom la Mankeur Ndiaye waxuma ko alerte quotidien moo ko wax lii nag faaw ñu gëstu ko paase wutal ma numéro Mankeur. non non man woo ko xool ba xam kay fi mu ne nii. Mm-hmm. lii nii moom na ko gëstu sécurité waaye au delà. Mm. na jàpp ni bokkatul ci mouvance ba génn fipp nit nit góor day am fuy toll fippu. ah fippu kat man ta taxaw am. position bi mu am. wax ne li ñuy def nii du yoon. bu dëgg du yoon tegul ci yoon. 24 heures nee na avertissement bourdonnement ce mercredi de casseroles et de klaxons partout au Sénégal pour dénoncer la gouvernance euh, de de de Macky Sall. Mmh. journal bi nee na avertissement ak point d'exclamation. Mhm. tarkal la. mami dama bëgg internet yu dégg. tout à l'heure ci titre journal je pense euh, direct news. Mhm. ban la wala ban la bi ñuy wax euh, Macky sur son 31. waaw ñu ne c'est le 31 juillet. ah xaayaan ku dégg séeréer. chers internautes je vous adore vraiment je vous adore. est-ce que xam nga ñi ñi ñi ñi ñi ñi gis nga ñi ñuy seetaan nii nabu. je vous adore dès que ñi ñuy seetaan nii ñooñu ëpp xam-xam téeméeri junni yoon. wallaahi moo tax seen ay commentaires ak seen ay réactions mhm. daf ñuy neex. billaahi nu mel. jàppal ni ñun ñu ci terrain bi di ki ci gradin yi li muy gis. Mm. moom li muy gis moo gën moo la gën a gis yow gis yow yaa ngi jàpp yaa ngi gis. Mm-hmm. parce que yaa ngi ci terrain bi. Mm-hmm. mais moom. Mm-hmm. mu ngi gis loo gisul. dëgg la moo tax ñoom ñu baax. macha allah yàlla yàlla guddal seen fan. critique journal daal di ñëw ci aveu d'impuissance ou échec de la résistance journal bi nee na le vacarme des casseroles. critique ci la ñëw tey. c'est à se décourager des hommes politiques providentiels qui pensent détenir. des pouvoirs au point de donner des ndigal aux citoyens pour l'initiative du leader de PASTEF en plein rapport de force avec le pouvoir c'est un aveu d'échec qui ne dit pas son nom ah bon. Pape Sarr. Pape Sarr mooy. critique mooy directeur publication. moo wax lii Pape lay ziar bu baax. Mhm. Euh, chacun est libre de l'interpréter comme oui, il veut. bien sûr. Mais la réalité c'est le peuple qui le déclare. bien sûr. et avec ce système-là. ginnaaw da ngeen di rey nit bu bu ñu tiiree bu ñu nit ñi demee xeex forcé ngeen ne opposants yi ñooy rey nit ñi. bu opposants yi nit ñi ne nañ tàcc nit ñi tàcc ngeen ne na lu mooy dañoo échec kon yéen yéen bëgg nit ñi jaay jëf yëfu guerrier il y a des questions qui ne se posent pas Pape nuyu naa la. ba baax <laughs> L'As Quotidien ñëw na ci beneen mbir moom ci wàllum conseil des ministre bi ci la taxaw mu ne l'administration territoriale complètement chamboulée. Mm-hmm. Euh, journal bee ko wax. ah euh, conseil des ministres bi seen naa démb sax sama sama xarit yi nekk foofu ci RTS doon ci taxaw tuuti alors euh, li nga xamante ne moom mooy hausse des cas de Covid ñu ne dañuy dafa yokkaat ba tax na président Macky Sall moom delloowaat na masque yi. Mm. takk leen masque yi ñu ne Covid baa ngi fi ba tey buuseegul. foo ñëw ci concert de casserole et de klaxon journal bi nee na Paris gagné pour Sonko et Yewwi Askan Wi. mais lii mooy dëgg. mais lii mooy dëgg lii moo am. lii la ñu gis démb ci ndakaaru gis ko partout au Sénégal. un peu partout à Dakar et dans les régions wallaay dëggal nga ma. les populations ont participé au concert de casserole et de klaxon bokk nañu ci. fu waay tollu dégg nga ay bool yu kaseng kaseng yi dégg nga itam ay klaxon profité ci occasion bi ngir mën a dénoncer nag xoolal na bu li ma doon. vie chère baa ngi fi. chômage baa ngi fi. violation des libertés ngi fi. ak yeneen ak yeneen parce que journal bi trois points de suspension la def Ousmane Sonko nee na. Mhm. dañoo initier loo xamante ne du faux ce n'est pas un jeu mu ne c'est un geste populiste forme de manifestation la boo xamante ne dañu ko proposer sénégalais pour jox leen opportunité li xam ne mooy ñamaañoo ci seen xol yi li tax seen xol yi di fonctionner nii. ñu mën ko génne. am na ay yoo xam ne nii la ñuy fonctionner fu nekk nii rythme bi nii. këkër këkër. waxuma la këkër ala ala këkër këkër. lii kii na këkër këkër nga nga nga xamu nu ko nu ko Pa Assane di waxee mbëmbëx mbëmbëx mbëmbëx mbëmbëx. yaa ngi dégg ndënd ndënd ndënd ndënd ne aa ngay bëgg a daggal te mënuloo ko. Mhm. neel ndënd ndënd ndënd ndënd ndënd Ndabu Ndabu xoolal ma ci dictionnaire wala fa ba xam naa ne. man wóolu ma wóolu ma ko. boo defee am na lu muy signifié. non tàmbaleel neen ndëdd ndëdd ndudd ndudd bala neexee u teg si kutaaba. Ah! ñëwal ci beneen journal. la ilaha illallah sayyidina Muhammad rasulullah si kii kan la. l'observateur l'observateur mu ne acte grave en vue de compromettre la sécurité publique journal bi nee na film de l'assaut contre la Sénélec. Hmm. le poste relais situé à la sortie 10 de l'autoroute à péage dañ ko attaqué à coup de cocktail molotov. ah kon kon molotov kon kon yu bëri yi loolu la. waaw mën ñu ne arrêté par la sûreté urbaine Mor Gueye un des membres du commando dafa mouillé kenn ku tudd Aliou dañ koy woowee dun xaaf. Ah, désigné ko Ousseynou Seck alias Akhenaton comme le commanditaire. journal bee ko wax mu ne le ma Madické Niang euh, astaghfirullah baal ma de baal ma le ma Madické Diop Diop la sant damaa juum de moom dafa jaay ay fumigène ñi nga xamante ne ñoom la ñu tuumaal ne ñoo def yëf yi mel ba pare dañ koo arrêté foofu ci booru port de Dakar euh, journal observateur nag moo génnee lii nga xamante ne acte grave la hmm. en vue de compromettre la sécurité publique voilà donc journal bi itam ñëw na ci rebelle Ousmane Kabiline Diatta placé nañ ko sous mandat de dépôt hier par le doyen des juges loolu la ñu euh, information bi nga xamante ne. jox nañu ko concert de casserole et de klaxon journal bi ñëw na ci nee na Sonko fait sauter les couvercles. ayca ñu ñëw ci beneen bi yéen kaay l'évidence euh, dafa ñëw ci li nga xamante ne mooy mooy mot d'ordre bu Ousmane Sonko journal bi nee na vacarme dangereux pour le pouvoir. waa ndax riirum weñ yi ñu dégg démb moom baax na pressage bu baax la wala paasan amoo ci xam-xam Chadira en 1979 mm. oui bañ ko tëggalee ay casserole ndax daanu naka jekk ma xam ne am nga ci xam nga ci xam-xam donc toj toj tojtal la ñuy wax tojtal la maanaam day toj day toj tojal tojal ok xam nga tojal nag ñaari signification la am paasan xam nga ko. Hmm. tojal xam nga ko. moo la ban wax ma. daa am ñaari signification. ban am tojalu liir ak tojal benn tojal. wala <laughs> nga ne tojal rek ma xaw a taxaw tuuti. doon a si bët. daa am tojal toj toj ak tojal liir bokkul. vacarme bi daal en tout cas dangereux na pour le pouvoir. ah sax am na signification bu ci wax nga ci bàyyi xel largement suivi par le peuple ñu ne oto yeeg moto yeeg waa charrette yi sax ñu ngi woon ci biir ndekete jeune vieux journal bi nee na la baraka suit Ousmane Sonko face à un pouvoir dont la sympathie disparaît. Mmh. journal l'évidence moo ci ñëw euh, ñëw na itam ci la conspiration du silence euh, benn lettre ouverte boo xam ne Serge Malou moom moo ko adressé kii di président de la République euh, mhm. Macky Sall. ay ca ñëwal le mandat daal di ñëw ci manifestation bi itam manifestation de l'opposition au Sénégal ñu ne force aux casseroles. mooy titre bi nga xamante ne mooy titre journal le mandat tey casserole yi démb am nañu doole lool la ñu tëgg ci réew mi kenn mënatu koo wax dikkal ma xool le quotidien le quotidien ñëw ci entretien boo xamante ne def nañu ko ak ministre des affaires étrangères de l'Ukraine Dimitro Kuleba noonu la tudd ñu ne monte au front xam nga ngaa la yenn moo koy wax foog ma liir ko bu baax ñu ne nous travaillons sur la visite du président Macky Sall à Kiev ñu ngi ci liggéey ci visite bi mu xam ne def na ko foofu ca Russie tôt ou tard Poutine sera vaincu mu ne le Kremlin tient délibérément en otage l'Afrique mm. alors moom moo wax lii moom entretien la boo xamante ne le quotidien ci la xëy ñëw tey. xam nga lan moo lan mooy eh, baal ma nga dellu si. ñëwal. xam nga léeg-léeg da nga am boo xam doo ko mun expliquer. Hmm. ànd ak nit. nga ànd ak nit. Mm-hmm. waru tax nga gëlëm ci dëgg. Mm-hmm. ba nu àndee man ak aw. Mm-hmm. néew ma si dëgg dama naan sëñ bi lii doxul bàyyi lii. dëgg c'est ça. mais non sama waaj sama waa lu mu def noon la. sama waa sama waa ji fekk mu mat waay. <laughs> kay ndama ngi ci gàccaa ngi ci. waaw kay quand on donne la parole à ces vous avez un chef d'État qui sacrifie son pays l'Ukraine ci loo xam ni du lenn lu du satisfaire benn parti de l'Europe nga xam ne ñoom ay impérialistes lañu mais ci biir loolu ci biir loolu Mamy Samb bàyyi ma ci biir loolu l'information bi ñu war a jox sénégalais yi ak ñi ñoo seetaan ak àdduna bi nekk sens bi alors que sens bi la war a nekk. Mhm. quand monsieur Mitro Kuleba mi ministre affaires étrangères Ukraine. Mhm. nga jël ko def ko à la une d'un journal sénégalais ak enjeu yi fi mu toll ci géostratégie nga xam ni Sénégal tey fii Russie di defee vingt milliards de dollars ci benn weer mois de mai. Mm. Sénégal war na mën a am fulla bu toll ni tegu ci rampe yi koy permettre. fi muy jëlee quatre-vingt-dix pour cent de son pétrole. Mm. wala de son gaz ou de son zircon di ko jox France. Mm-hmm. total ak ña ca des. Mm-hmm. mu am dayo mm-hmm. di jël sax au cinquante pour cent. wala lu ni mel wala soixante. ba soixante-dix. waaw dayo boobu bu ko sa nguur amul. nga sàggane ko yow waxuloo loolu. Mm. mais yow nga nekk ci logique gu mel ni ku mel ni ñun senegal ñun dañoo war a jox dëgg ñii fexe leen ba ñi ngeen jëlee kii. ngeen di jëm jëli noonu le le représentant russe au Sénégal mu wax leen réalité wu guerre bii. Mhm. parce que lii Ukraine Russie. Mhm. Russie moo nekk si dëgg. Mhm. dafa mel ni tey nga ne Sénégal Casamance. am réew mu jóge fële ñëw ne Casamance mun nga bokk Union africaine. dëgg-dëgg te Casamance boo ci Sénégal maanaam tey ah. tey Union africaine bokk. Mm. Union européenne. Mm. neel mooy Union africaine. Mm. ñëw ne Casamance yéen mën ngeen bokk Union africaine. dëgg la. man Macky Sall maay Vladimir Poutine ma ne lii du ci du ci dal ñu ne man damaa bëgg bëgg ay ah. lii mooy li xew ci ci Russie et ça il faut pas que nos médias là monsieur ma jambal kilifa bi maa ngi lay interpeller sanu baay bi di la nuyu ba baax y a des choses il faut pas les orienter ñi newuñ ci dëgg mhm. donc il faut pas leur donner la parole pour presque dire aux Sénégalais d'accepter ça newuñ si dëgg tey jii nii lii nga xam ne Union européenne mu ngi kaa def fële ca ca ca zone Afrique euh, Europe de l'Est teguwul si dëgg. Mhm. te loolu la Poutine di xeex te Poutine bu nekku nekkutoon. Mhm. lu bon dinañ ñu ko def. Mhm. merci. Eh, jëlal quotidien national Le Soleil <laughs> ayoo la Soleil yow tey màggal nañu doomu ri wax ngeen dëgg yéen quotidien national Sadio national Sadio Maajo bu ngeen ko defee ci seen une des titres wàcc ngeen tey moom mënu leen wax ba du ma def taxaw seetlu ci yéen. la Soleil nee na nouvelle recrue du Bayern de Munich Sadio Mané affiche ses ambitions quotidien national Le Soleil titre nga ci lu mu ne Sadio Mané nee na toujours travaillé dur damaa mës liggéey pour mën a liggéey ci ay bokk ci ay club ndaanaan yu mel ni Bayern sama àdduna yépp nag defi la waaye yow journal bi yow li nga titre rëy jëndal. Eh. soleil national ñaar fukk eh. lay jar kii tey day ah, jar tey. yow taxawal hmm. Sadio Mané mën na jongale du actualité ana casserole yi. waaw yow eh. soleil laa lay wax de. waaw yow tamit soleil national askan wi yëpp bokk yow nag côté eh, xoolal dama bëgg nga bàyyi quotidien national le soleil tey tey du mën nangu ku leen wax ñi mën tey du mën nangu ku leen wax Papa xam nga lu tax quotidien national la soleil la pas Assane bu wax ci héros national. jaadu na bu ko neexee bul waxi bool sa yoo nekku ci bool. tey Sadio Maajo la saf saajo Maajo nga tiitre te li nga tiitre neex na ma sa journal day jar tey ñaar fukk lay jar ñëwal beneen <laughs> le témoin quotidien mu ne la fièvre de la casserole s'empare du pays Sonko réussit son Bercy une belle une bi neex na ma de mhm. xam nga Bercy sax daa laaju paas Bercy xam nga daa laaju paas mami Bercy da ngay laal ropp laal xam nga yow bu ñuy dem seen kër dafay taa asamaan si dafa xiin revue bi <laughs> ay fexee gaaw ñu tàllal nga def revue de presse. kon ñu yendu jàmm nga. non non non ah. war na ma wax booy dem seen kër dafay taal man maa la kër day taal waaye yow amoo fi li nga wax ni yow mënu ma la cee porter plainte tëj la yow. non yoon bi la wax yoon bi. ah déet booy dem seen kër dafay taal ku la waaye ku la ko wax suñu yoon kër day taal ñu. baal ko baal ma sàmm yow li nga wax ni ma yow ba ci kanam procureur de la république foofu la ñu koy sama téléphone bi li ci nekk ay menaces jóge ci yow dem so waaw yow on rek Sonko réussi son Bercy mhm. Bercy ba neexoon na démb ñëpp mhm. génn nañu tubaab fa kàll macha allah quotidien national le témoin moom moo ko wax ñëwal feneen ma xool mhm. le vrai journal ñëw ci situation politique tendue ñu ne ndax faut-il reporter les législatives pas Assane laaj la est-ce que législatives yi dañ koy loolu la ñu war a defam déet en tout cas Macky reste sur son 31 31 bii bëgg naa ko comprendre trop jaaxal na ma. 31 juillet. am na Sénégal vote le maintien. am na am na communiqué bu ma jot léegi nii. bu ñuy wax ne euh, le pole de communication de la présidence mu ngi mu ngi xam xamle ne ñun du ñuy wax ne Union européenne. Mm. dafay apparemment waaye ñun waxu. bi may wax dama ne si c'est confirmé. Mm-hmm. donc noonu laa waxee j'ai j'ai parlé sur le conditionnel. ñoom dañu ne euh, que dañoo wax ils auraient écrit au président Macky Sall pour le report des élections mm-hmm. ma mu yónnee ma communiqué léegi ne ma le pôle de communication de la présidence mu ngi wax ne loolu c'est une fausse information. si si lire que ne y a pas de la question n'est pas le report wante wante wante mm-hmm. ñu ne ñu lii faux la fekk dëgg la. léeg ñu ne ñu lii du dëgg. lii lii vrai la fekk faux la donc wax lees waxu Mhm. d'accord merci. ayca mhm. quotidien national les échos euh, ñëw na ci xoolal titraayu observateur bi journal bi moom la ñu ko ñëw attentat manqué mu ne au poste électrique de la Sénélec sur l'autoroute euh, journal bi ñëw na ci ay détails waaye ñëw na itam euh, ci transfert au Bayern définitivement scellé ñu ne Munich déroule le tapis rouge à Sadio maane dañu ko teeru macha allah moom Sadio ngi tarkal macha allah te ni mu ni mu ni mu ni mu ni mu ni mu simple ndeysaan. Mhm. noonu la généreux. wallaahi ngi mel ni du dara ci moom woyof gi mu woyof nag moo tax di ko yokk xéewal saa su ne ah, libération mm-hmm. mbirum xale mi nga xamante ne xale cinq ans bi ñu bi ñu bi ñu égorgé ci Sébikotane euh, ki ko def nag muy wuju peccor go yaayam Astou Fall nag def na ses derniers aveux de l'horreur mu ne j'avais pris la ferme résolution de tuer AD quand je lui ai de me suivre mu ne au-delà de faire mal à sa bu weesoo sax bëgg-bëgg bu mu am pour pour pour def lu metti yaayam euh, il avait toujours raison sur mon enfant, même quand il avait tort. Tout le monde tranchait en sa faveur, ce que je ne supportais plus. Qui, je pense que dafa wérul waaw. parce que nit ñi balaa ñoo jàpp ne da dof rek da soli sagar. di dox ci mbedd bi di wax bu doon arabe bu doon arabe mm-hmm. comme pour nit ñi déjà génn ci psychose bi. parce que moom le fait muy dund nii ci li mu def nii di jàkkaarloo ñu naan prison à vie sax. Mm-hmm. la ci famille xale mais bien sûr Sonko gagne son pari et les vous vous yi moo doon laajte sànq afoon. oui. tuba ci commentaire ñëwal beneen journal réew mi quotidien élection législative ñu ne le palais dément tout report. Mhm. parce que yow war ngaa amub xam-xam wala moom lu lay dee ci sa nopp de parce que man vraiment ni ngay anticiper samay mbir mu may commencer déranger petit à petit. ah bon déranger ma sax damay wax nii rek. waxatu source ah xamoo ma man yow man yi laay def léegi damay jékki-jékki di wax yoo xamante ni gëw ma ko sax daf may dal. source a ah, lii ci la bokk mais li ma doon wax avant yooyu ma wax fii yëpp dëgg la de ah taxawal Sénégal dañoo mën ay affaire dañ naan kon mami mi lu mu wax noonu kii non ay xaritu dóor yi maanaam ci laa nekk kenn sañu la ko wax te ma toog fii de wóorul on ne sait réew mi dafa pëccëxu source a mu ne affrontement entre étudiants au campus social de l'université Cheikh de Dakar ñu ne encore Macky et Sonko journal bee ko titré waaye ñëw na itam ci ay révélations sur les non-dits ci mbirum interpellation ak libération bu maire bu euh, yeewi askan wi bu Sangalkam dañ ko teg loxo. démb xale yi foofu sànni xeer. waaw lu tax ñu jàpp ko ah, mu ne le maire Pape Sow arrêté à la suite d'une dénonciation faite par un partisan du maire sortant Omar Gueye. <laughs> L'édile déféré malgré le témoignage du propriétaire du terrain. Talla Gueye membre de Yewwi Askan Wi a contredit son fils auteur de la plainte en faisant comprendre que c'est lui qui a donné son onction pour le lotissement ah affaire suuf la moom mujj nañ ko libéré dem ci guddi après libéré nañ ko libéré nañ ko oui d'accord alors sur quotidien commandement territorial mhm. le grand chamboulement journal bi tamit ñëw na ci report des élections arrestation des membres de l'opposition troisième candidature de Macky Sall Aar Sénégal également tir surtout mhm. euh, démb dañoo amaloon euh, ay ndaje ak way taskatu euh, xibaar yi mhm. alors teral daal di ñëw ci teral quotidien ñëw ci Sadio Mané de Liverpool au Bayern ñu ne challenge bu bees boo xamante ne moom gaynde gi war na ko itam relever mhm. journal bi bien entendu ñëw na itam ci kaw ci son sort les casseroles Benno occupe les réseaux sociaux avec le slogan président Macky rek alors tribune journal dafa ñëw ci affaire de affaire union sociale libérale état du Sénégal vidéo aujourd'hui ñu ne les législatives reportées si trois points de suspension mmh. après la sortie euh, sur la situation politique ñu ne Mankeur Ndiaye euh, il est victime d'injures et de menaces de mort lii nag cas bi mu ngi commencé sérieux nañ ci dañ ci dañ ci bàyyi xel bu baax euh, Vox Populi ñëw na ci méga concert les Sénégalais se sont au son de casseroles et de klaxons Ousmane Sonko moo nekkoon chef d'orchestre bi moo done ton bi ci butu këram yaa ngi dégg mu ngi mel ni tey boo nee super étoile mbay Dieye fay moo tàmbali yëfi waaw xam nga yuusu bu ne yuu mbay danaan ko bay am njaay joxal jóob Ousmane Sonko nag dafa tàmbali démb gi waa Ousmane ko ñaari kubéeru cin yi mu yore démb man de bu ñu ko dàppul tey bu mu xëyee lu ma la waxati bu ko gëm kubéer yee diis. est-ce ah kubéer yi diis na de moo tax Pa Assane gis naa ne bu mu ci bu mu ci tëggee dix fois onzeul de. dafa mhm. gaaw a duggaat na defi fii naan moo tax ñu naan ñu naan kubéer bi lii kubéer bi lee man leen les vieilles marmites font les bonnes sauces. kër sax da ci am. cin yu bees waaye yu yàgg yi ngay toggee. ah suppu kànja ak mankatang la. yow nga la yaa wax lii ala tiir Casamance ga. ah mhm. doy na waar. wallaahi. mu ne. baal ma fu mu ne maintien de la date des législatives mu ne Macky inflexible yow la rek ñëwal fii ma xool ma tëj ak euh, stade quotidien Bayern na Sadio ne dafa dévoiler ay ambition mhm. je suis venu pour gagner plus de trophées loolu moom ma fi indi sama àdduna yëpp defi la Klopp de dafa tristoon waaye respecté na itam choix am mu ne Klopp Salah Van Dijk ñoom ñëpp dañ koo rendre hommage macha allah jërëjëf Liverpool yal na yàlla wóyal seen yoon bu baax Sadio boo arrivé au Bayern rouge bi ça te va très bien daf la jàpp. rouge ay mbiram la. Ah. del sur rouge. Southampton ba fii ñoom Oliver Kahn rouge ay mbiram la. waaw su naam lu ko Sadio waaye yow lii moom lii ba lan la wokkal ma. <laughs> Eh, ci bi ñuy waxtaan nii waxi contact yooyu noonu Huawei may nañ ma cinquante francs yéen a baax. Euh, kilifa yaa ngi a ma yokk naqar de. la la une de Mhm. Elle est très belle, c'est une très belle très belle photo. Et tu vois ci seen visage que ils sont mhm. contents. dañu kontaan dalal ko avec joie te xoolal sérénité bi bi Sadio maane di affiché. il a toujours le, le visage serein. te bu demee Bayern souriant mais serein la tête sur les épaules il va plus s'affirmer parce que Bayern li ñuy soxla ci joueur ak ci ci euh, hygiène de vie lépp Sadio da ko am macha mais wax nañu ko xoolal nee nañ moom Sadio Mané nee na on va réaliser de grandes choses. foofu ca Bayern. te itam am na ay réaction yoo xamante ne journal bi jël na ko. Mhm. en tout cas nañ jàpp ne Sadio Maajo bokk na ci ci les dix meilleurs moments avec les Reds. Mhm. waaw kon nag bonne chance fi nga nekk ci sa club bi. Mhm. yàlla na la jikk réew mi sport ñëw na ci euh, gànnaa ngi mu ne un club. passe à l'action pour Gana Gueye ñu ngi toog di xaar yow itam na dem yëf yi yëf yi demal waaw bañ a dem na dem moom coow li fi am yi defe naa ne ñaaw na ba pare gëw ma ne mënati dara rafet donc fii la ñuy taxawandi bu ko Bayern na bu ko Bayern na bëggee na dem Bayern na. ci ci ci revue de presse bi. Mhm. revue titre bi.